tournée agricole bi niñ ko gisee mooy Macky Sall si boppam ñëw na fi ah, benn tournée boo xam ne tournée agricole mbala tournée économique la ko tuddee woon mais bi mu ñëwee Kaolack dem na sax ba dugg si tool yi mais tool yooyu mu dugg ba mu fa génnee taxul mu am benn soppeeku si ah, maanaam taxawaayu baykat yooyu parce que baykat yooyu tey si dëkk boo xamee ne nii tey su mbay miy waaj a commencé nawet bi waaj a commencé ministre bi lan lay wax dinañ joxe ay semence bu baax dinañ joxe engrais suñ demee ñetti weer ñu ñëwaat ne dinañ jënd gerte gi yaakaar naa loolu taxul ñuy wax mbay loolu li muy wane mooy la ñun amuñu ay baykat yu mag ñun ñoo xamee ne ay bay dundee lañ am maanaam la ñuy bay dañ koy dundee sinon du ñu dund mais bayuñu loo xam ne dana suqali seen koŋ ba nga xam ne ëllëg dinañ ci mën a gis seen bopp maanaam ñu taxaw ci seen njaboot lañ bëgg ñun loolu am fi ndaxte damaa foog ne Sénégal toll na foo xam ne nii Macky Sall bi mu fi ñëwee si booba digoon na béykat yi ay tracteur war nañoo soppani xar kanamu façon mbay bi ñuy bañ parce que bu njëkk suñu mag yaa ngi nii dañ doon wax ne kat euh, euh, sa Kaolack bokk na si xolu bool dëkk dëkk yi nga xamee ne nii ñoom ñooy maanaam ñooy sàqu sàq yi sàq mi gën a mag fi nga xamee ne nii bu ñuy wax wàllu mbay foofu rek lañ mën a tibbee ji waaye tey ku ñëw fii da nga fiy gis ñoo xamee ne nii suñ bayul duñ dund moo tax ñuy bay waaye suñ amoon leneen luñ def du ñu bay mu Macky Sall bu ñu waxee dëgg mooy seeni gis-gis sorowul li ñuy gën a def mooy làmbaatu si secteur yëpp nag mais comme ñun Kaolack lay ñëw secteur mbay mi dañ kaa bëgg a xamal ne ñun Sonacos buy dox lañ bëgg mais bëgguñu Sonacos boo xamee ne nii ay machine kese ñoom ñoo fa dajaloo ak Sonacos boo xamee ne boo fa duggee ay mbaam nga fay fekk ak Sonacos boo xam ne boo fa duggee sax léegi insécurité la si ñi nga xamee ne nii environnement bi leen wër la donc ñun loolu soxlawuñ ko dañoo bëgg Sonacos bu ko buy dox Sonacos boobu nag dafa àndoon ak poor ñëw na fii dig ñu port boo xamee ne nii port bu war a doxaat la indi fi sax bato dajale Sénégal yëpp dajale leen fii ne leen man kat damay doxalaat poor bi balaa mooy dig ñu si. poor boobu bato ba fa taxawoon war a wàqi port ba ni ñu koy tuddee bato boobu sax fan na deqi ba kenn gisatu ko suba dañoo oo képp koo xamee ne Kaolack nga nekk nga takk jigéen ñi nañ musóoroo musóor yu xonq ñi nga xam ne ay góor lañ. suñ mënee sol mbubb yu xonq ñu cur ñu sol ko suñ ko mënul sol aussi suñ mënee sol mbubb yu xonq cur ñu sol mbubb yooyu suñ ko mënul sol aussi ñu takk ay brassard rose wan na ko ñun kontaanuñ si yow ndaxte kat loolu dina tax suba bu fi ñëwee suñu diggee kat bu fi jógee xëy na dina ko def ñun brassard yi 72 heures avant ñoo ngi ko commencé sol dinañ ko sol 72 heures après wan ko ne dama ne la 72 heures laa la wax bërki démb ak démb bërki démb ak tey ak suba danañ ko sol ginnaawaati suba ak beneen bis ba sa toppaat ba sa topp danañ ko solaat gungee ko ko